salaamaaleykum mbokk internet di wasaare TV ñoo nuyu bu baax a baax waaye encore une fois di leen baalu àq di leen di ñaan yàlla lépp loo xam ne rek euh, loo xam ne lu baax def nekk ci koor gi yàlla nanguwul ñu ko si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bienvenue dans votre rubrique K sur le plat comme d'habitude kaa yëpp lay jël defal leen ko sur le plat ngeen tànn si bu leen neex xam ngeen ko information bi avant koor avant Korité ba léegi yéen a ngi koy dégg affaire Dubaï porte à porte toilette portable. ça dépend su ku nekk ak nu mu koy déggee wala langue boo xam ne daal moom nga koy déggee en tout cas mu nekk loo xam ne doy waar mu jëm jamono lañ nekk loo xam ne yaakaar nañ ni Sénégal ak nit li muy bon bon bon maanaam bonam du agsi fii peut-être gisoon nañ fi ñoo xam ne peut-être dañuy jàpp ay nit di leen violer ñu gis ay nit ñoo xam ne dañuy jàpp ay doomu aadama di leen xooj ba ñu dee ñu gis ay nit ñoo xam ne da sax dañuy xaru. loolu yëpp yaakaar gisoon nañ ko Sénégal peut-être mënoon nañ ko muñ mais buñ demee ba ay jigéen ñoo xam ne lay jóge fii Sénégal dem fa si dëkk boo xam ne mooy Dubaï Dubaï na taal loor boo gisee yenn yenn ville yoo xam ne da ngay kontaan moo xam ay hôtel moo xam ay kër ak lu mënti doon des lieux très paradisiaques loola waral ay doomu aadama yoo xam ne ñoo ngi jóge fii si Sénégal wala jóge fépp sa xam ne ñoo ngi Afrique wala sax dans le monde laay mënti wax jóge seen dëkk dem fay si Dubaï. dafa def loo xam ne neexul maanaam c'est c'est imaginable c'est même pas moo pour pour qualifier acte yooyu noonu bu nee ba doomu aadama nekk douce doomu aadama toog dem sa kaw kër maanaam ibbi sa gémmiñ dafa dem kër walla sax nga séqal lu mel ay xaj wala ay chameau mu nekk loo xam ne lu doy waar se bah se baa même pas xaw ma sax na na laa ko mën a qualifier parce que tey jii nii euh, doomu aadama ak yàlla nu mu ko tëralee ak yàlla nu ko fonkee alal tax maanaam nga dem di jaay sa bopp jaay bu nekkoon jaay sa bopp sax garaawul parce que euh, mën nañu wax ne garaawul parce que lii moom moo gën a garaaw jaay sa bopp parce que peut-être dañoo wax mais jaay sa bopp moo nekk métier boo xam ne moom moo gën a yàgg si àddina bi parce que yàgg na di fi am avant ñuy judd am na ñoom ñoo xam ne ñoo ko doon def mais tey jii lii dafa doy waax trop trop trop trop lan moo ko indi. bëggum xaalis buñ gisee si yenn yéenekaay yi am na ñoo xam ne sax nee nañ euh, dem nañ ba si fayeeku vingt quatre millions de francs CFA mu doon loo xam ne doy waar mu est-ce que un milliard de francs CFA sax jar na yow nga nekk toilette nit di dem waxuma la sax nit nit la sàqu waaye nit di dem ba di jëfandikoo sa kaw maanaam di dem toilette sa kaw est-ce que loolu jar na ko est-ce que tey ji vingt quatre million de francs CFA jar na ñu jël xaj di ko booleeg nit. man dama yaakaar sax bu amee doom doom ba lan lay doon doomu nit lay doon wala doomu xaj lay doon est-ce que xaalis boobu tax na ngay seq ak loo mel ni euh, tey jii ne ay ay chameau la dafa doy waa dafa doy waa trop trop mais lan moo indi lii yëpp lan mooy cause bi est-ce que pauvreté la wala bëgg xaalis la wala manque d'éducation moo tax euh, nit ñi tey jii xamutu fi ñuy taxaw. loolu yëpp ay problème la mais lu ma si gën a metti man euh, wala lu ma si gën a remarqué mooy peut-être euh, si cause dama jàpp ne manque d'éducation la parce que dama jàpp ni am na foo xam ne ses parents bu ñu la ko éduquer pour leen fekk la c'est tout un problème wala tey jii nii mais tamit il faut que def benn benn benn benn loo xam ne mooy différencier parce que du ñëpp képp képp koo xam ne moo ngi dem Dubaï rek ku bon la am na yeneen jigéen ñoo xam ne ñoo ngi dem Dubaï di fa daan seen doole te liggéey moo ne fa yóbbu. liggéey daan seen doole ñaqu ñëw dimbali seen njaboot mais tamit comme ni ko gisee am na ñeen ñoo xamante ni ñoo ngi fay def di fa def lu bon te ñooñu ñooy influencé ñoo xam ne nii tey ay xale lañ amaguñ 18 ans bu ñëwee fii Dakar wala ñëw fii Sénégal di gis ñu yore seen ay ron sur di gis ñuy teg ñuy takk ay pain en or yoo xam ne moo ngi jar ay 1 million 5 million 10 millions ay xale yooyu tamit gis nga ne pourquoi pas ñun tamit mu ñu dem Dubaay def lii parce que liggéey bi dafa yomb trop même pas 10 minutes nga am sa 24 millions de francs CFA. wala nga am ay takkaay ay saag yoo xam ne amul fenn donc keneen bu ko gisati mun na fa dem donc il faut que ñu bàyyi si xel bu baax a baax mu doon loo xam ne lu doy waar la su sunu su sunu bim réew. peut-être ñooñu dinañ feeñ waaye peut-être tamit lii di état du Sénégal di def ay enquêtes yu leer ba ñii ni ñu mën leen daan wala ñu mën leen teg loxo bu baax a baax ba xam ne ñeneen bi mu bëggee def lii duñ ko def parce que tey jii xale bu jàpp ne moom peut-être instant yi moo ngi nekk si ay jafe-jafe te bu séqee ak benn tubaab wala benn naar. dina am lu mat vingt quatre millions si benn jour danaan xaar ma dem def ko. donc mu doon loo xam ne lu doy waar la mu doon loo xam ne sénégal yëpp ñoo ngi koy ñaawloo bu baax a baax en tout cas fu fu fu ñu fu ñu jëm àddina bi lenn nga gisugul mooy maanaam euh, nit boo xam ne moo ngi samp loosam di dox. lépp gis nañ fi gis nañ fi sax ay góor ñoo xam ne ñoo ngi ëmb donc mu doon loo xam ne lu doy waar la mujjum jamono lañ nekk nag waaye il faut que ñu delluwaat suñu xel bu baax a baax li leen indiloon tey jii seen émission cas si le laa den jox dig daje ba beneen yoon si beneen kaa jërë ngeen